ñun nag euh, li tax ñu jël euh, précaution yooyu mooy dañ gis ne euh, fii milieu touristique la beneen bi mooy dañu am bassin boo xamee ne bi mu ngi fii à côté te ndox yu salte yi yëpp foofu la ñuy dem te bassin bi c'est à ciel ouvert mun nañu wax ne dëkkukaay yooyu la kon su nawetee nii yooyu dafay dañuy xaw a sonal askan wi euh, loolu moo tax ñu décider dal xam euh pompe dëkk bi. opération bi ñi def ni am ndëriñ parce que xam nga yo dafa am ñaari xéetu yo dafa am ay yo yo xamni ni ci jawji lañuy euh ci biir neegi lañuy dund am ay yo yo xamni ni ci biti lañuy dund donc bu fekkante ne ci biir neegi ni kër yi joxé nañu sanké nit ñi di ci teud mais mëno dëkk ci biir sanké éternellement il faut nga génn boo Vous bu fekkente ne jëluñu aspect traitement spatial bi allez danañ la la forcément donc pour xeex sibiru du joxe sànke kese mooy tax sibiru dellu ginnaaw donc dafa am ay facteurs yu bëri yu ñuy non seulement joxe sànke def traitement intradomiciliaire def traitement spatial extradomiciliaire n'est-ce pas def une lutte environnementale assainir milieu bi euh, lepp li nga xamni mën na constituer jute larvaire muy pot muy pneu muy euh, bol bu yàqu wala pot de fleur nga xam tata ndox nga xam ni ndox da ci da ci nek milieu la ba nga xam ni yooyu ca la nen buñu ñu ci lañuy juddu buñu juddo ci lañuy mag buñu bu ñew ci population bi indi loraange donc euh, euh limay lim en gros euh il faut nga bolé facteur yu bari pour mëna a xeex sibiru du patch pàcc moy mooy xeex sibiru produit mom moom produit yi cher na xayma dina mot ay trois trois ba quatre millions ci produit bi apportu mairie sali et en même temps euh, dama len di féliciter di remercier parce que jot nañu la brigade départementale bi de ñaari atomiseur et ça vraiment c'est à saluer parce que nous avons une compétence transférée bo une compétence transférée nous ñun

nous devons être les conseillers numéro un des collectivités locales. donc ce que on est leur partenaires, nous sommes obligés de les accompagner parce que dans les missions régaliennes du service national de l'hygiène l'accompagnement des autorités locales et administratives dans le cadre d'une bonne marche des activités de santé, de santé publique, qui le bon, maanaam ñun yoon la ñoom ñun ñu ñu nekk seen wet di leen xelal di di leen dimbali pour ñu mën a mën a jëm kanam daal.